ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xumbata dagan officiel moo ñëwaat ba léegi rek suñuy waxtaan ci wàllu fàttalante waaye jamono ji ñu toll dañoo toll ci li nga xam ne nii mooy coronavirus bi di ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla dimbali ba nga xam ne nii ñi mu jot a am rek ñi ko jot am yàlla na leen yàlla saafara ñi ko amagul yàlla na leen ump yàlla nañu yàlla dimbali génn ko ci li nga xam ne nii mooy dëkk bi macha allah ñu ñëwaat suñuy waxtaan ci fàttalante ci Khoumba dagan officiel ku ñu bëgg a topp da ngay abonné ci page YouTube bi Khoumba Dagane officiel mi ngi noonu dafa amoon ay question nag yu jotoon a ci jamono yële eh, kii nag ku góor moo ko moo ko dugal comme commentaire waaye du ñu joxe turam mu ne ndax góor war na soxla boppam laaj jabaram pour nekk ak moom ci kaw lal bi jabar ji bañ ba muy nekk di fo ci awraam ndax loolu góor ndax loolu war na ñu wax ne allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim euh, question bi nag balaa ma cee ñëw dama ci gis ñaari question ci biir muy ndax góor war na soxla jabaram jabaram di bañ euh, bëgg a nekk ak moom ci kaw lal bi mu bañ beneen bi ndax góor war na toll foo xam ne ni euh, soxla jabaram bay fooye li nga xam ne ni mooy awram dañuy ñëw ci benn question bi beneen bi ñu denc ko ba beneen incha allah ñu indi ko mooy dañ ciy wax la ci yonent bi salaa salaam waxoon ndax moom jàngale ne lépp euh, problème bu am rek indi ci solution bu yàgg a yàgg yonent bi dafa ne mu ne isa daa rajulu imraatahu ila firashihi fa lam taati fa baata xadbaanan la alayha laanatahal malaikatu xatta tusbiha mu ne góor ki de bu soxlaa soxnaam ci kaw lalam mu woo ko ci kaw lal bi soxla ko bëgg a nekk ak moom maanaam di sëy ak moom mu ne mu bañ ku jigéen ki bañ bañ lànk ne moom daal du nekk ak moom moo xam prétexte bu mu mënti indi la mu bañ ci li nga xam ne nii da koo neex rek maanaam gisul ay réglam feebarul deful dara moom dafa bañ rek mu ne malaaka yi de dañ koy fanaanee rëbb malaaka yi dañ koy fanaanee rëbb ba suba jot te rëbbu malaaka yàlla nañ ci yàlla musal jigéen comme li may wax rek tout le temps ni jigéen ñi di toogee des fois naan man rek ci xale pare man damaa pare man damaa sàngam man dama sàngam pour man pare bi ngay pare di ko wax euh, bu bu rombee kaf beeg reetaan bi war sa sa jëkkër moo war a confirmer lool mooy lan ci ni ngay nekkeek moom ci ni nga koy toppatoowee ci ni ngay fowee moom ci ni ngay kafee moom waaye rawatina nag kawlal bi ndax sëy li ko tax a jóg dëggantaan toujours ma wax te kenn sañu ko bañ dëggantaan li ko tax a jóg mooy kawlal bi bu ñu weesoo lim lay defaral et tout ça kawlal bi moo ëpp important si biir néegu sëy bi am na ñoo xam ne tey jii dañuy frustré wu dañuy stressé wu fu ñu toll ci wàllu góor comme jigéen mooy satisfaction bi ñu war a am si kawlal bi duñ ko am ndax lan day am ay problème yu baree bari yoo xam ne mi ngi ci biir néegu sëy bi duñ ko waxtaane day dem ba indi li nga xam ne nii mooy indi jaxasoo bi duñu mën a déggoo ci kaw lal bi moo xam jëkkër day soxla jabar jabar ji di bañ di indi ay chantage ak yeneen ak yeneen moo xam ku jigéen ki day gis lu ko metti ci jëkkëram du ko mën a lijjanti ba mu indil ko ay frustration mooy bu ko jëkkër ji soxlaa muy bañ yooyu war nañ ko xeex avant ñuy yegsi ci lal bi waaye bu ñu waxee ci question si wàllum pare jigéen nan lay pare mooy heure bu la sa borom kër soxlaa war ngaa pare war ngaa prête ñëw pour euh, euh, pour wuyu li nga xam ne ni moom la lay woowee pour euh, li nga xam ne ni mooy satisfaire ay besoin nga combler ay besoin am waaye waru laa soxla ngay bañ wala mu soxla nga ne xaara ma nangam xaara ma sàngam jigéen bi pare te muus te xam nan lay nan lay doxalee ak borom këram mooy chaque jour rek mooy question temps règle ak temps boo nekkul ci règle yépp booy tëdd dangaa war a sangu ba sa septième temps bi génn nga xeeñ lu leex lu neex temps règle mën nga sol say yenn culotte yi ñu xam ne yow dangaa nekk ci règle am na noo war a mën a solo mais boo nekkul ci règle yaa ngi wér moom waroo toog naan la ay dama laa soxla ay mu lay laal nga naan ko bu ma laal bu ma sàngam bu ma sàngam day indi ay prétexte loolu jigéen bu pare du ko def jigéen bi pare mooy day sangu ba set di xeeñ lu neex wut say déodorant fu nekk nga laal ko fa si say yaram foo xam ne lem-lemu yaram mi ngi fa rek nga def say poxataan def say waax def si lem-lemu loxo yi tànk yi fépp nga laal ko fa xeeñ lu neex nga wut say li nga xam ne ni mooy gel intime nga laal ko wala nga wut say déodorant nga laal ko nga wut say parfum nag yoo xam ne nii parfum chambre yu léger nga laal darab bi ba mu taali na doon darab bu weex xam naa dinañ ci ñëw ci astuce yi wane nan lañ koy defee mbaa ñu waxtaane nan lañ koy defee boo ko lalee nga daal di parfum bu dee couvre-lit la nga parfum ko bu dee dara booy sàngoo nga parfum ko bu dee moom ay yéreem sax yi mu war a sol guddi gi war nga koo defar tegal ko ko parfumé ko ba nga xam ne bu ko solee moom bu tëddee nelaw même bu deful dara sax ay nelawam dina neex dina yëg li nga xam ne nii mooy guuwu nelaw yi dina neex lool mu nelaw ci jàmm yeewu ci jàmm waaye ki nga xam ne nii doo sangu ba set doo defaru doo nangam doo sangam bu ko defee sa jëkkër du sawar ci yow wala bu dee dafay dafay nelawit day nelaw ak xol bu naqari wala du du du sawar di la jege wala nangam wala sangam kon jigéen bi pare balaa nga yegg ci yàlla lal bi d'abord war ngaa pare sa lépp dal di toog daal di pare bu heure bu la laalee rek nga daal di wuy ci li nga xam ne ni mooy wooteem mais jigéen bi daal ci biir néegu sëy bi warul bañ li nga xam ne ni mooy jëkkëram waru koo bañal dara ci surtout ci wàllu néegu sëy bi surtout ci lal bi waru ko cee bañal dara surtout nag bu dee yaa ngi wér dara daru la waroo koo bañal dara waroo koo chantage ci dara xam naa waxtaan bi mënul yem ci benn Mm, ci benn nii rek ci benn jotaay dañ koy yemani fii rek incha allahu ba beneen indiwaat ko gën koo yaatal ndax am na yeneen thème yoo xam ne ni ñi ngi ci biir ay sous-thème ak yépp mi ngi ci biir waxtaan bi dinañ ko indiwaat gën koo yaatal fii lay xewee ci biir Xumbuta Dagan officiel ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di bége ñëpp xarit yeeg am di jàmm yeeg soppe yeeg mbokk yeeg ñëpp ñu ngi bége ñëpp di ziar ñëpp nuyu nañ ñëpp macha allah fépp fu ngeen mënti nekk rek nuyu nañ leen ñu yemandi fii rek ba beneen incha allah wa والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته